njëkk ñi tàmbali suñu darsu tey bi am na ab baat ci darsu bi weesu woon dañ cee juumoon firee ko wafa dikkal na maqaamaatil huda waaye wafa matal na day tekki waafa mooy dikkal na boo ne matal na maqaamaatil huda maqaamaay yaqin ya donc matale nag ba pare jitteem daal di buur jëm ci maqaama ibrahim leeraloon nañ loolu kon wafa matal na waaye du wafa dikkal na mu ne fal yahni xajjun wa xajjun ashraqa fi ufqi majdin qad banaahu mushayyadi mu ne fal yahni ne ndokk ibnu nasir xajjun aj wa xajjun ak ajug ñaareel xajjun aj gu njëkk mooy xajjun aj wa xajjun ak aj ashraqa nga xam ne fenk nañ fi ufqi maj fi ufqi majdin ci goxi tedd nga mushayyadi tedd nga gën a gu ñu yëkkati gu ñu kawel qad banaahu nga xam ne tabax na ko moom ibnu nasir mu ne ibnu day na ko kontaan loo xajam gu njëkk moom la namm ci xajjun wa xajjun maanaam xajjun mooy aj gu njëkk gëm njëkkoon a aj wa xajjun mooy ajug ñaareel gi nga xam ne aji na ko mu ne ñaari aj yooyu day war nañoo bégloo ibnu naasir aj yooyu nag dañoo ñëw fekk ibnu naasir moom amoon na tedd nga koo xam ne ni moom moo ko tabax yëkkati ko ba mu kawe tedd nga koo xam ne moom moo ko sàkkul boppam ba aj yi ñëwee nag dolleeku ca dañ ko yokk leer yokk ko tedd nga waaye tedd nga moom amoon na ko ngir mbaax ngir xam-xam ngir njub ki nga xam ne nekkoon na ci ba ñëpp wuy si woon aj yooyu nag ba ñëwee defuñ lu yokk ko ak tedd nga yokk ko ak leer mu ne wa maabuhu ka shamsi tatlu baadama xujibat bi nuurin saatiin mutajaddidi mu ne wa maabuhu ak dellum ka shamsi daa mel ni jant tatlu boobu dana fenk wala tatlu boobu ma ngay fenk bi nuurin ci leer saataan leer gay aji jolli tasaaro mu ta jaddidi bu ñu waxee saata jolli mooy mu tasaaroo rek leer nañ mu ta jaddidi gay aji bees baadama xujibat gannaaw bu yiréef ko moom jant boobu mu ne moom ibnu naasir ba muy dellu bayee koo euh, penku di dem di ñibbi sowu gam dëkk mu ne daa mel ni jant boo xam ne nii rek dañ ko muuroon mu jékki-jékki fenk indiwaale leer gu jolli gu tasaaroo daj fépp noonu la mel ndaxte ba mu jugee sow sow daa mel ni jant ba daa muuru woon mooy amatu amatutoon jant dellu gi mu delluwaat sow nag daa mel ni jant ba daa muureeku indiwaale leer gu tasaaroo daj fépp mu ne wali yahni naa bi liqaayihi mahfudatan saaxaatuhu naylul amaani roogadi mu ne wali yahni naa nan ndokkuñu mooy nañ bég naylul lan mooñu ñu bégloo mooy nañ bég ci naylul amaani am ak mébét yi mooy nañu kontaanloo naylul amaani wali yéex ni naa na ndokkuñu mooy nañu kontaanloo naylul amaani am ak mébét ya arruxadi mébét yee way yaatu yee way naat bi yi ci sababu dajeem ci sababu dajeewam mooy daje gi ñu daje moom mahfuzatan muy lu ñu sàmm muy lu ñu wattu saaxaatuhu ay dingareem mu ne ñun tamit day war nañoo bëgg kontaan ci am giñ am mébét yu yaatu yi nga xam ne ni mébét yu kawe amoon yëpp jot nañ ci ne loolu nag war nañ cee te loolu mooy dajewaat ak jëmmam dajewaat ak moom te dara sànkuwul mooy mu ñëw indiwaale diineem indiwaale bakkanam ak lépp loo xam ne ni taq na ci ibnu rek waaye lim fi bàyyi woon tamit muy njaboot geeg euh, njub geek lépp dara sànkuwul lépp yàlla sàmm na ko mu ne loolu tamit war nañ cee bég tamit téere bi mu ngi ko tuddee at tahaani mu ngi ko jëlee fii li muy wax naan wal yëxani na na ndokkuñ wala fal yéexnihi nu ndokk ko ndaxte li ko taxoon a taalif xasida gi mooy sëriñam ba mu demee màkk ci yoonu ñaareelam ba muy ñëw nag mu koy tatagal di ko ak tahaan yi noonu la tuddee téere bi kon mu ngi ko jëlee ci wal yéexni na wala fa yéexnihi chara gu mu chara téere bi mu ngi tuddee chara bi naylul amaani mu ko jëlee tamit ci bay bii mu naan li yeeni naa bi liqaayi mahfadatan saaxaatu naylul amaani bogadi foofu la jëlee turu chara mu ne yaa xirza kulli muwaa'ilin wa giyaasa kulli muammilin wa siraaja kulli muballidi waafatka bikrun bintu fikrin saadirin تجلى حياء في رداء مجسد بل عنص عجفا مسنتين تلفهم وجه الرياح إلى الكرام رفد من يا حرز كل موائل yow ndàmbal bépp aji làqu wala yow tàppuwaayu bépp aji làqu xirz mooy làquwaay wala tata képp koo xam ne nii day làqu yow yaay tata jamiy làqu wa riyaasa kulli mu ammili tey taw bépp aji yaakaar aji mébét riyaas mën nga ko firee taw mën nga ko firee xettal ndaxte taw daa mel day xettal mu ne yow mi nga xam ne képp ku mébét yow yaay taw ba koy xett taw ba mu yaakaar yow yaay xettal jam yaakaar képp ku am yaakaar daal yow yaa koy xettali wa siraaja kulli muballidi tey làmpa bépp aji gëlëm waafat ka dikkal na la bikkurun jànq bintu fikirin doomi xalaat saadirin xalaat bay aji gëlëm tujlaa nga xam ne def na feeñal ko mooy def na jébbale ko xayaa an ci kersa fi mu nekk ci lambaay mujj sadi ba de bu ñu cuubee zafaran aljasadu mooy zafaran wala aljasadu boo mujj sad mooy masbuqun bi zafaran mu ne yow mi nga xam ne képp kuy làqu yow yaay tata ja koy làq yow mi nga xam ne képp ku am yaakaar wala muy mébét yow yaa koy xettali yow mi nga xam ne képp ku gëlëm yow yaay làmp bi nga xam ne yow yaa koy leeralal ba mu gisaat aw yoon dañ ci ngëlmaaneem nga mu ne maa ngi lay wax ne la indil nañ la jànq boo xam ne nii moom lañ lay jébbal waaye jànq ba nag xalaat bi nga xam ne mooy yaayam xalaat boobu xalaat bu gëlëm la ba xamul sax ndax la muy wax jub na wala jubul ndax kalaat ba daa gëlëm assaadiru mooy comme ni ko ni ñu ko jànga woon ci maqaamatul xaria ayuha saadiru fi xulawaayihi mu ne nag comme kalaat bi nga xam ne mooy yaayam dafa gëlëm kon du indi lu rafet mu ne nag ñu ngi la koy jébbal ànd ak kersa ñu ngi la koy jébbal ànd ak kersa ñu ngi ko solal ay yére nag yoo xam ne ñu ngi ko defaree ci zaafaran li mu wax fii muy xasida gii moom la tudde ab jànq jànq boo xam ne li ko jur mooy xalaat bu gëlëm xalaat bu nëx moo tax ni mu war a rafetee du ko rafete moo tax jànq boobu boo koy jébbal borom këram da ngay rus ndaxte rafetul kon xasida gi moom la ñuy jébbal boroomam mooy Ibnu Nasir xasida gi nag ki koy jébbale mooy euh, taalibam bii di xasanu al xasanu nu Mas'ud waaye ba mu koy jébbal boromam daf ci ànd ak kersa ndax xasida gi rafetul léegi nag li mu wax ne yaa xirsa kulli muwaa'ilin wa xiyaasa kulli mu'ammilin foofu am na taxaw seetlu mu woowee ko woote boo xam ne niñ ko xamee woon mooy woowee ko ki nga xam ne mooy yàlla subhanahu wa taala ndaxte yàlla moo xirsa kulli muwaa'ilin wa xiyaasa kulli mu'ammilin képp koo xam ne nii dafa gëlëm wala képp koo xam ne dafa day xettaliku wala dafay yaakaar wala dafay làqu kooku yàlla kese mooy ki nga xam ne moo mën a làq ñëpp moo mën a xettali ñëpp kon da gis ne wax ji boobaa dañ koy wutal wala jubluwaay bi leen ni lay doon mooy li ñuy tuddee amun urida bil xusuus amun bi bil xusuus mën ko koo wutal génn waay ndaxte dañuy wax ne waxi borom xam-xam fekk yaa ngi koy mën a wutal génn waay rek danga koo war a wutal génn waay kon la ngay wax rek mooy jubluwaayam mooy ña nga xam ne nii ñoo nekkoon ak Ibnu Nasir képp koo xam ne nii am na lu muy lu muy xettaliku bu demee ci ibnu nasir ibnu nasir làqoo ko xettaliku waaye foofu ba tey ñu leeral ne xettaliku ci nit ci lim mën loolu dagan waaye itlaaq ko ne rek itlaaq ko loolu dañ koy bañ ndaxte itlaaq nit ne moom mooy xettali jaam yi loolu daganut loolu ci yàlla rek lañ ko mën a wax wax na nit nit kooku mooy te daal képp koo xam ne nii dafay làqu loolu tamit it làqu ci yàlla kese la dagan daganul ci milieu kon nit xettaliku ko ci lim mën loolu lu dagan la ndimbali ko sàkku ndimbal ci nit lu mën loolu tamit lu dagan la kon fii lii nga xam ne mooy maanaa bu jub bi rek mooy ibnu nasir ña nekkoon ak moom bokk moom jamono nekk ak moom buñ amaan lu ñuy luñ loo xam ne nii lënt na leen wala loo xam ne nii dañ koo ragal buñ demee ci ibnu nasir ibnu nasir dana leen làq te loo xam ne Imam Nasir mën na ko nag buñ amaan tamit loo xam ne nii yaakaar nañ ko ci Ibnu Nasir lu Ibnu Nasir mën a faj loola buñ demee ci Ibnu Nasir Ibnu Nasir xettali leen ca loolu kon ci bunt boobu rek nga koy dugal mu ne bal li am an su aj fa xam nga xasida gi daf laa ne ab jànq la boo xam ne ne xalaat bu nëx moo ko jur moo tax bu ñu la koy indil dañ ci am kersa mu ne bal bàyyi loolu sax bal li am sax an su aj fa gëlemu mbéyu way lompañ lañ aj fa jamono ci aajëf mooy ñu néew doole làpp mus nit yi ne ñee way bekkoor le ñee way dugg ci bekkoor as sanatu mooy at moo xam ne dafa bekkoor boo ne mus nit yi mooy ñoo xam ne ñu ngi nekk ci atam bekkoor talufuhum dana lëmas leen huujur riyaax yi way riddi ngelaw ya ilal kiraami jëme leen ci way tedd arrufa di ñee way xonte arrufa di ñee way maye mu ne xaside gi sax nekkatul jànq boo xam ne nii xalaat bu ndax moo ko jur waaye nag gëléem ak ay nit ñu lompoñ lañ ay nit ñoo xam ne dañoo neew doole nekk ci atam bekkoor xam nga gëléem googu du suur gëléem googu du suur ay nit ñoo xam ne ni amuñ doole ci at ma atam nekk atam bekkoor mu ne nag ñoom dey ña nga ànd ak seen gëlëm gu loof googu seeni boroom loof ñi koy ay ngelaw yu am doole di leen puus di leen diri di leen indi ci ñu tedd ñu mën a maye te mooy ibnu nasir talu fuum di leen diri huujur riyaah yi way rit yi ngelaw ya bu ñu waxee riixun hawjaa u mooy ngelaw lu dof dañuy wax naaqatun hawjaa u muy ngelaw gëlëm gu dof gëlëm gu am doole kon ngelaw yu am doole yuy riddi li ñu tuddee al awaasif dañuy ñëw di daaneel batiment yeeg yu mel noonu loolu ñu tuddee euh, euh, riijun riixun hawjaa u kon xasida gi lay wax rek ne xasida gi daa nekk xasida gu goo xam ne suurut moo tax mu nir la ko gëlëm ak ñoo xam ne dañoo lompoñ nekk ci atam bekkoor waaye nag xasida ga moom defar nañ lañ ca mën di ko yóbbu ci waajoo xam ne moom ku tabe la kon lu xasida ga néew néew doole ak lu mu lompoñ lompoñ comme ci ku baax lañ koy yóbbu ku mën a maye la kooku moom euh, ku ko defal teranga da nga xamne defal nako mata defal teranga lo rek lu nam ci wax joju muy wax mu khudiyat bi rakhsil l wa amjadat bil aydi wal ya'did kull al mu ne khudiyat dundaleef na gogu bi rakhsil l ci aji nat ci yasmin ak nargis nargis ak yasmin mom la nam ci abharayni wa amjadat mu reg bil aydi ci aid wal ya'did ak ya'did kullal mamjadi bu mu mus regg mu ne gërëm googu ñu ngi ko dundalee te xasiida gi rek la namm mu ne ñu ngi ci dugal ay baat yoo xam ne ay baati teeru la nargis ak yaasamin ay fleur la yoo ne ci teeru bi la sax ayit ak yaadit ay fleur la yoo xam ne ci àll bi la ñuy sax mooy dëkku kaw yi li mu bëgg a wax mooy xasiida gi ñu ngi ko duy ba mu fees ak ay baati teeru waaye ñu ngi ko duy ba mu regg ñu ngi ko sol ba mu fees ak ay baat yoo xam ne ay arab yi kaw kaw mooy arab yu jafe arab yu xóot waaw ba xasida gi fees mu ne sabaqat ilayka maa zalaami bawakirul xirbaani bayna mushayian wa mugarridi mu ne sabaqat jiitu na ilayka jëm ci yow maa zalaami ànd ak lëndëm gi bawaakirul xirbaani way teel a xëy baaxoñ yi mooy moo njëkk sax jóg baaxoñ yi nga xam ne dañuy teel a xëy te boobu mu ngi lëndëm jëm si ci yow bayna mushayian nekk ci diggante aji gunge wa muqarridin ak aji wéetu waaw ah, léeg mu ànd ak kenn léeg-léeg moom kese mooy moom mooy mu shayya mooy koo xam ne dafa ànd ak kenn muqarrid mooy koo xam ne moom kese moo ànd mu ne wata jassamat axtaara aqtaari mata asra biha tayful xayaali yu hayyad mu ne wata jassamat toggoona moom xasida gi ba léegi mooy gëlëm gi gëlëm gi mooy xasida gi axtaara aqtaarin way wóoradi gox mata asra saay warañaane biha ci gox yoyu tayful xayaali ceeneeri jëmm yu xëyyadi tiitaleef ko mu ne mu ngi dugg ci gox yoo xamante ne nii di fa jaar di rañaan te gox yooyu muy jaar ceeneeru jëmm bu fa jaaroon sax day tiit xam nga loolu xam nga loolu daa bokk ci misaal yi nga xam ne dañoo dañoo rafet lool ndaxte loo xamante ne nii amut nga xam ne xayaal rek la da koy imagine imagination boobu bu fa jaaroon sax day tiit nga xam ne amul bët amul jëmm fa kay fa nit ki nga xam ne dafa am jëmm am bët moom bu ci bu fa jaaroon kon kooku tiitaange mooy gën a kawe mu ne min kulli ma alamin duwayna najmi la yasmu ilayhi tarfu baada min jëri mu min kulli ma alamin maa googu ma li zaida rek la min kulli ma alamin tukkee ci bépp doj alam mooy màndara du way na naj mi nga xam ne jege na biddiw moo yées na biddiw tuuti rek moo ko tere yég ci biddiw moo tax mu ne du way naj mi yées na biddiw mooy jege na ko laa yes mu du yëkkati ko yi jëm ca moom ak tarfu bët bi baadal min jëdi gannaaw yu ndaw mu ne gox yooyu muy àll ya rek doj ya fa nekk dañoo kawe ba jege biddiw ya bët mënta xool ba xam sax fan la doj yooyu yem xanaa doj yu ndaw yi kese nga mën baaxdal min jëri gannaaw doj yu ndaw maanaam doj yu ndaw yi moom mën nga leen a xool de waaye boo leen rombee doj yu mag yi fañ yem mënoo koo xam baaxdal min jëri gannaaw doj yu ndaw yi moo tax mu ne laa yes mu di yëkkatiku ilay jëm ca doj woowu ab tarfu bët bi baaxdal min jëri gannaaw doj yu ndaw yi wa tanuufatin fatfadatil tahdi manairuha wa xallin junjudi mu ne wa tanuufatin ak àll tanuufatin am na ñuy def tanuuqatin waaye wa tanuufatin ak àll fat faadatil adyaali bay aji rémb ci ay mbicci nga xam ne àll yu yaatu loolu la ci namm mooy bu yaatu rek al adyaali jamono ci azdaylu laa tahdi du ay mandargaam mooy ay sororam jamono ci manaaratun wala manaarun mandarga soror soror mandarga la ndaxte rawatina ci dëkku àll yi boo demoon boo daan jub ab dëkk la la koy njëkk a na ne dëkk soreetul mooy ngay seen soroor yi moo tax mu ne laa tëddi du gindi mën a iroa ay sorooram wa xallin ak yoon jun judi bay boroomu bay boroomu beeñ ñu xasaf mudaaf ilay ba maanaam wa xallin ñu xasaf mudaaf ba afon ñu xasaf mudaaf bi bàyyi fa mudaaf ilay ba wa xallin di jun judi wala nga def ko idaafa wa xalli jun judi ak yoonu beeñ mu ne àll ne àll yu yaatu la mandarga ya fa nekk mënuñoo gindi kenn yoon la yoo xam ne dañoo bëri dañoo bëri dañoo bëri beeñ mashmulatin majnubatin masbuwatin madburatin sadral xalitil musaadi mu ne mashmulatin yoon yooyu nga xam ne dañoo bari beeñ ngelawal càmmooñ mu ngi fay ëpp ak ngelaw li bay ko càmmoñ mashmulatin ngelaw luy upp bàyyee ko càmmoñ maj nuubatin ngelaw luy upp bàyyee ko janub mas bu wotin ma ngay upp ngelawal saba maanaam ngelaw luy upp bàyyee ko penk mooy as saba mooy ngelawal penk ma ne mas bu wotin mooy ngelaw lay upp bàyyee ko foofu madbuuratin ma ngay upp ngelawal dabuur mooy ngelawal xarfu sadral xaliit yi ca digg mboolooya ya al musxidi yeeway dox mooy mbooloo ya fa nekk di dox alxalit day firi kenn waaye dañ koy firi al jins ismul jins bi nga xam ne day damm ñëpp la ci nam al mus'idi ñee dox mu ne asara fil ardi mooy dox na ci kaw suuf si mu ne nag yoon yooyu nga xam ne dafa bari beeñ ngelaw lu nekk mu ngi fay upp di bayee ko wàllu gu nekk rek nit ñaa ngi fa nekk di dox jaxasoo lool maanaam nit ñaa ngi fa bëri di dox ngelaw li di upp ci wàllu gu nekk wa xilaaluha aliya sifatika wal xula فأتت بهيجة كاهل ومقلد ترجو قبولك والأمان لمشعر بذنوبه مثل الهدي المقلد إلى مقلد ولا مقلد من وحلالها أي كدايم جملة الحلية جملة ال الحلة عفوا جملة الحلة وحلالها أي كدايم جملة الحلة اللي نيجي تدي أي يري كومبليت wal xulaa ak ay takkaayam jamono la ci alxilyatu aliya sifatika way kawee sa melokaan mu ne ay kodaayam ak ay takkaayam takk ba tax mu taaru moom xasida googu so moom la nam rek ci <clears throat> li muy wax jànq ba ak gëlëm ga mooy xasida gi koddaay yamu sol takkaay mu takk sa melokaan yu kawe yàlla fa atat dikk na moom xasida googu bahijata kaahilin di aji taaru ci joggare wa muqalladin eh, bahijata kaahilin di aji taaru ci joggare wa muqalladin ak ci ranguwaay wa muqalladi ak ci ranguwaay mooy doq ga rek maanaam ma nga dikk doq ga taaru ak joggare ja taaru mooy lam sol ma nga rafet mooy joggare ja ci la sol ay yére doq ga ci la moo tax mu ne wa xilaal waa ay koddaayam wala xulaa ak ay takkaayam aliya sifaatika mooy way yëkkati ku say melo fa atat mu dikk ba hijjata kaahilin di aji taaru ci jog rew mu xalladin ak ranguwaay mooy doq tarjiw muy yaakaar nag xabula ka sag nangu mu ngi yaakaar nga nangul ko xasida googu nga xam ne wala loolu nga xam ne moom la moom la moom la wax ci yow mu ngi yaakaar nga nangul ko ko wala amaana ak kóolute mooy nga defal ko sécurité ba nga xam ne du tàbbi ci mbonte yi nga xam ne nii euh, du am dara lu muy ragal daal du am dara lu muy ragal day tàbbi ci ay ñaawteef li mushaarin ñeel ku ñu mandargaal bi bi ci ay bakkaaram mitlal hadi yi mu mel ni yu mu xalladi ba de bu ñu ràngal mu ne mu ngi yaakaar nga nangul ko maanaam foofu mu ngi yaakaar nga nangul ko li nga xam ne moom la indi wala mu ngi yaakaar nga ñaan yalla mu nangul ko wala mu ngi ñaan yalla nangul ko jaaree ci yow ñaan yalla tamit mu defal ko sécurité ci sa loxo ngir lan ngir ne mom kat dafa siiwee def ay ñaawteef ak ay bakka bañ mandar gal ko mu melni ni yu nga xam ne lañuy ray fa makka nga xam dañ koy gal ngir war ko ray kon non la mel ci ay bakkar da dem ba bëri ay bakkar ba melni sax mom dañ ko wara alak ba gal ko motax mu ne tarjuma ngay yakar moom xasida ga lay dellu xabulaka sag nangu wal amaana ak kóolute li mushaarin ñeel ku ñu mandargaal bi zunubi ci ay bakkaaram mitlal hadiyi mu mel ni hadiyu mu xalladi ba de bu ñu ràngal wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam